voilà mbokk yi ñu ngi taxaw ak euh, sunu coach Mame Less bu Parcelles Mbooloo Mame Less ñu gis Wouly tey mu indi mu résistant quand même mu utiliser expérience wala nu mu demee noonu combat bi. non nee naa la làmb chaque fois day am lu bari luy doxal làmb Wouly benn am na ñaan am na jàppale. tey ci combat bi ñaanoon na suñu borom. ñaan ko ne ko bu ma maay naa la tuddee doom. waaw kon kooku bis bi ñor na ko. Eh, xeex na ak Big Pato. dóor na Big Pato ba boo xoolee ndaal bopp li Big Pato kuy boobu mu jël loolu moo tax mu teel a jébal bàyyi boppam joxe kaat appui. mais Big Pato est-ce que en tant que euh, euh, en tant que koo xamante ne euh, force de l'ordre la. waaw préparation physique bi mu waroon a am est-ce que am na ko parce que sentiruma trop Big Pato force wala doole. nee la mbër doole mooy contact pas dem saal dem naas wala dem géej. waaw da ngay contact ba os lu combat bi yàgg-yàgg nga mën koo maintenir te aussi liñ leen di wax. ci combat yi di ko analyser di leen ko jox dañ ciy war a jëlee xam-xam. mais pas mu yaakaar dañ leen di critiquer. parce que loolu taxul ñu def lool liy defar làmb lii ci la bokk. ndax bu nit waxee da nga xam ne lii nit ki wax erreur la ci man nga jëm ci rectifier sa bopp. mais gis nañu aussi euh, wulli waa ji na jël tànk yi deux fois ak wulli da nga daan jël mu ne jañang mais wulli am na lu ma am ci ci entraînement quand même. wulli dafa làqatu woon ci ruqam. waaw liggéey. diis gan te nee naa la am na yenn poids yoo xam ne booy bëri ñoom bu dee entraînement mi ngi sa yaram dëgg sa waay combat bu njëriñam lay nekk. lan la ñu war a wax wulli kon. non comme moog liiru jaan taxaw na na gën a mi tracé bi mu nekk nii moom bañ a bàyyeeku li mu jot a entraîné mu yokk ba nga xam ne bu taxawee ak liiru jaan dana gën a neex.